Anna Modou Dieng chargé de la commission euh, de la sous-section SUTSAS de l'hôpital Matlaboul Fawzeyni de Touba. dajale mbooloo mi tey nag li li ko waral mooy dañoo am ay jafe-jafe ci hôpital bi si jafe-jafe yoo xamante ne nii ci li wàllu ñuy liggéey la wàllu loo xamante ne dañ ko suñu ak yelleef la ak ay mbir yoo xamante ne nii ñi fiy faju dañ ko war am te amuñu ko bi si njëkk nag wala yi si njëkk nag mooy ay jafe-jafe ay rupture yoo xamante ni amul dara la ko mën a expliquer ay réactif yu manqué bañ a jël suñu analyse di ko sous-traité ci ay laboratoire de privé alors que appareils yi ñu ngi fi wala ay gan yoo xam ne ko war a liggéey wala ay alcool wala leneen leneen ay consommables yoo xamante ni dafa war a am ci hôpital bi te amu fi jafe-jafe yooyu na si loo xamante ni aussi mooy mbirum euh, appareils yi nga xamante ni dañuy panne ñu war a fay fournisseur pour fournisseur bi mën a def réparation à temps mais duñ fay fournisseur bi loolu aussi day tax malade yi dañ leen muy transfert yenn hôpitaux yi yooyu noonu mën naa citer exemple lu mel ni gastro euh, bi mu nekk médecin interne médecin bi mi ngi sur place chaque jour mi ngi xëy 24 sur 24 mais amul appareil bu muy liggéey correctement parce que sonde bu mu liggéey amatu ko yeneen point yi nga xam ne bokk na si aussi mooy li nga xamante ni moom mooy euh, suñu mbokk stagiaires yi nga xamante ni am na fii ñoo xam ne ñu ngi liggéey fii depuis 12 ans kenn jëlu leen ay nit ñoo fi barki dee moo njaay wisaay seen i mbokk lañ ñu jël leen dugal leen dafa leen contrat bokk na si ñu naqari parce que ab sage-femme boo xam ne def na stage lu mat 10 ans wala koo xamante ni mi ngi liggéey ci ay rayon wala mi ngi ci yeneen risque yoo xamante ne ni mu ngi fi chaque année ñu jox la këyit na la renouveler sa demande stage ñu defal la 6 mois fu loolu fu am stage ba combien d'années 12 ans nga di ko stage sans ñu jël la fu mu teguwul fenn loolu boo ko ñu naqari te moom ay nitam ñoo ne barki dem moo ñaan ñu jël leen estafam am na si ñoo xamante ni dañuy jël seen di ko dugal teguwul fenn am na stagiaire yu fi stagiaire ñoo xamante ni dem nañ fi dañuy dañuy xëy wàcc te am dara nu ñu passé ndax fayul leen benn indemnité boo xamante ni moom la ñu mën a bind wala benn motivation te alors que say nit bu ñëwee tey ñu defal la indemnité cinquante mille francs plus motivation tegawut fenn nag loolu dañu koy dénoncé beneen bi mooy li nga xamante ni moo jëm si wàllu semis état moom mooy ki nga moo sos hôpital yi pour ñu nga xam ne ñu def semis mooy lan dialyse zéro à cinq ans césarienne et cetera ci loolu hôpital Matlaboul Fawzeyni mooy hôpital bi nga xam ne moo gën a supporté semis ci Sénégal amul instant wax ak yow état mu ngi amel presque un milliard barki dee moo ñu xam lu mu jox cent dix millions est cent dix millions bëgg nga fonctionner correctement te ñun fii dañoo xam ne dëkku Sëñ Tuubaa lañ nekk dëkk social la moo tax amuñu droit di def yenn affaires mooy lan arrêté yenn prestation semi parce que suñu papa suñu yaay ñoo fi ñëw di faju donc état na def li mu war a def mooy lan mu jox ñu suñu xaalis mooy remboursement semi bi mu def ko à temps parce que mënoo nit ameel ko un milliard da ambulance hôpital bi li muy ngan ne ngan niveau 3 la benn ambulance moo fi am buy dox te ambulance boobu noonu tey rôle rôle sa bi yaari moo koy joué yenn saa nit am fi ñu jël ambulance bi teg ci corps bi yóbbu ko morgue ba te alors amuñu corps bi ambulance benn ambulance boobu moo war a def euh, évacuation yi suñu war a évacuation sanitaire kon nag état moom moo ñu joxoon Covid ñu waroon gérer suñu ambulance lakk ci Covid bi ba tey jii nii remboursé wuñu ambulance boobu waxantuma dañu jox benn ambulance état. mooy ki nga xam ne moom moo supporté hôpitaux yëpp hôpital Matlaboul Fawzayni hôpital niveau 3 la ban hôpital nga Sénégal niveau 3 buy am subvention 550 millions wala 500 millions ñun kese ñoo fi am 500 nanga millions waral Sénégal kon nag ñi ngi wax état pour mu yokk suñu subvention bi yóbbu ko ba 1 milliard wala 1 milliard yu topp parce que bu defee ñu mën a li nga xam ne moom la ñu defee ñu def mais instant bi vraiment subvention bi dafa ndaw tellement naa ne 5 ans yi wala 6 si loolu beneen point ne moom mooy lan mooy suñu mbokk contractuel yi ab agent na lay liggéeyee 15 ans sans pour autant mu avancé nga ñëw wax ak moom nga ñëw wax moom mu dagg mën na ngoo dagg 5 ans wala 6 ans perte ko comme ça nga nangu accordé ko 10 ans fay jot nga war nga bëgg ko fay naan ko dégg may koy nii laa ko fay naa la ko fay fu mu tegee te liggéey nañ 15 ans yoo xam ne ñu waroon a fay suñu rappel avancement fay ñu ko kon nag nañu fay suñu intégralement voilà beneen point bi si bokk mooy lan mooy li nga xamante mooy bâtiment extension pédiatrie bi pédiatrie dañ faa def benn bâtiment wax nañ ko extension ko tuddee bâtiment wax une fondation amul dara ñu jëlal bâtiment financé ñu ne ma 150 millions promettoon ñu ne bâtiment bi 6 mois lay duré bâtiment bi 2021 la commencé 2022 2023 3 ans ngi nii bâtiment bi mënul fexe ba àgg tey sax bu àggoon laa wax mënul fonctionner parce que bâtiment pédiatrie mënul fonctionner sans oxygène ndax prévoir ci oxygène actuellement loolu mënul nekk kon xam nga loolu nga defa a benn lampe loolu fa lampe daaw suñu agent yi doon liggéey fii courant bi dañ leen masse parce que ndox mi day taw ndox mi di sànni ci biir muy masse agent yi kon nag nañu respecté agent yi nañu respecté agent yi jël agent yi ni ñu leen war jëlee parce que pour recruter moo am na droit recruter mais pour recruter dafa am fu mu war a jaar am na commission ressources humaines boo xamante moo war a suivre yooyu yëpp te yëpp da koy bafoué lu ko neex lay def kon nag na revenir à la normale sinon ñun dañuy continuer suñu keex nu ñu ko nu ñu ko bëggee ça ko xamante moom la ñu koy planifié ba keroog ñi am gain de cause parce que mënu ñoo déposer plateforme boo xam ne parce que 14 points la janvier ba léegi mënu cee satisfaire ñaari points donc c'est pas normal tandis que médecin yaa ngi fii ak ñeneen ak ñeneen ñu leen di yokkal seen indemnité logement euh, assurance ak leneen te ñun amuñu loolu lépp prime bi ñu amee ci néew nangu ko yokk kon nag na joxaat cër ñi ci suuf na joxaat cër ñi ci suuf respecté